ñoom amuñu majorité qu'est-ce que va devenir le le le le PASTEF et nan la ñu nar gouverner ak li nga xamante modi opposition bi fi nara nek parce que déjà les couleurs ont été annoncées ci li nga xamante modi assemblée bi ñu tas nii dem nañ fa gis li nga xamante modi taxaway bi ñu wone ñom dañu fee nekkoon pour juste barrer la route li nga xamante modi gouvernement euh, Diomaye. Mhm. légui nag PASSEF jël na le courage pour né mom day dem ci élection mom kessé ñële na leen ñu ngi def seen kënt lay kattan pour jéem créer ay coalition de partis politiques jéem barrer la route à PASSEF légui nag buñ ci égué buñ égué ci le 17 ñu gis ne li nga xamante ne moom moo di bëgg-bëgg Pastef bu njul am maanaam li nga xamante ne moo di mm-hmm. ko ñële a li nga xamante ne moo di euh, benn équilibre Pastef su boobaa nan lay na lay gouverner voilà li nga xamante ne moo di situation bi nga xamante ne peut-être bu xam ne noonu lay demee ba mu ci eggee dina compliqué trop ci ñoom parce que ñoom a xam nañ ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk wala ñi manqué nekk ci côté opposition bi

dugalee ci hmm. parce que déjà xaalis bi nga xamante moom la jot ne bu ñu defee réduction des comptes nañ ko mën a récupérer bu ñu ko dugalee ci li nga xamante moom moo euh, euh, euh, na améliorer bu baax a baax parce que hmm. ay milliards la ñuy dégg boobu ak léegi ay milliards ay milliards ay milliards donte sax bu ñu si demee sax ba am si benn cent milliards bu ñu ko baax a baax donc foofu la ñuy xaaree ne comme ni ma ko waxee demande sociale la demande sociale bi nga xamante ne askanu Sénégal ñu koy xaarandi bu baax a baax beneen bi yaa ngi doon tudd sànq léegi nii atel léegi ñuy xaar xaar nag parce que foofu noonu tamit am na <laughs> ay ay ay nit yoo xamante ne faral nañ di leen gis ci langue politique bi mm. ñu gis tamit li nga xamante ne moo di seen parcours maanaam seen ëllëg nan lañ nekkoon ci li nga xamante moo di gouvernement bi am na si ñoo xamante ne jotoon fi gérer ay poste est-ce que ñooñu Sénégal après li ñu def li ñu fi jotoon def nañ amaar confiance pour delloo leen ci li nga xamante moo di gestion gouvernement bi wala ci mm. assemblée nationale mm. yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen yaa ngi doon wax aussi euh, Amadou Ba moom ñëwaat na moom fi nekkoon premier ministre ñëw mu ne day créer parti politique léegi nag li nga fàtte Majambal Diagne

nag mooy ñoom. nee na am na lu ma war a wax Ngoré. Ah, nee bala ngay wax. mais bala ngay laaj Ngoré xaaral ma laaj Ngoré lu ma bëggoon laajte. Ah, bëgg naa def benn may ma daaneel après ma jox la. voilà doyen doyen xam nga ñu sànq ba léegi ñuy tudd ay coalition ah. ñoom nee na ñu ngi seen parti bi mu ngi ñu ngi xaar pour ñu diggante ko parce que dugal nañ déjà ah il a ah. elle a bien précisé nee na ñu opposant duñu opposant wa il faut le noter ça doon opposant non non doon na mbok ci coalition do le mbok ci coalition yi ñu dessiné wu de toute façon on va faire notre lancement le 12 ils peuvent rallier Pastef le 12 ngeen wax le 12 octobre le 12 octobre inchallah loolu laa bëggoon rectifier un peu excuse-moi euh passef bedoul ken mhm. voilà parce que gis ñu déformer récemment ay propos Ousmane Sonko bannière bi non bannière bi

manière tey nee kep képp ku bëgg a ànd ak euh, ñoom da nga ñëw da nga ñëw voté ak ñom c'est-à-dire y a tous les deux mouvements qui étaient dafay yok ñu rek affirmer dañu delloo si waat seen engagement wax ko diko jëf voilà ap ab man nag tey damay poser li nga xamante modi peut-être conscience u euh, sénégalais ak ngone tout à l'heure Ange l'a dit nena c'est le c'est le peuple donc décidé kan lay fal kan lay jox majorité mais mhm. compte tenu ci li fi xew man fa lay ñëwé ak yow mhm. li nga xamné ne di euh, li jotta a euh, ñàkk bakkan ci suñu ay euh, ndaw mën nañ né 80 vingts et quelques morts du lu tuuti te ñoom ñëpp ay jeune jeune lañ mhm. té ñi porté combat bi jeunesse bi la naka noné ñu gis li nga xamné ne di loi d'amnistie bi nga xamné faxas na yenn ci li ñuy joy té te noppeeguñu mu doon sénégalais yi lu ñu nakarlu en plus ñu gis reddition des comptes ñuy dégg ay milliards booba temps sénégalais di dé ak xif ak mar loolu yépp ñu bëgg ko boole peut-être gis nañ ay coalition yoo xamante ne tegu nañu di xaar li nga xam ne moo di élection législative ngir samp seen dëkk mm-hmm. est-ce que bu ñu euh, euh, peser li nga xam ne moo di impact bi ñu fi def ak peuple sénégalais bi li ñu war a décider yow mm-hmm. lan ngay jox kan ngay jox pour ak kan ngay euh, jox faveur mm-hmm. voilà ji nga coono yi ñuy dund en ce moment loolu yëpp c'est la résultante de la mauvaise gestion de Benno Bokk Yaakaar et leur mauvaise politique

yéenewul dara lu ndaw lu dul dawal jakarta mm-hmm. te xam ne ndawal jakarta premièrement risque bi si nekk mais du métier mm-hmm. activité boo xamante ne du métier d'avenir donc te dafa am lu laxasi woon si ginnaawam mm-hmm. nga jël sa frère jox ko marché yi jakarta bi wala tamit ba kooku di wax ne dafa so ay femmes yi da leen war a dafa ay la machine à laver yooyu yëpp ce sont des politiques yoo xamante ne dañoo waxoon ne dañ koy mettre en place au niveau de Kaolack. Hmm. mais la ca ginnaaw mooy mbokkam ba mu jël nga xamante ne moom mooy joxe jakataay moom mooy joxe machine à laver waaye dañ koy fay ndax marché ba moo koy gagné. d'accord donc ma loolu dama ko dénoncé woon. Mhm. en décembre 2023 ci mauvaise politique boobu te kooku moo nekkoon suñu ministre de la jeunesse à l'époque. Mhm. donc loolu yëpp mauvaise euh, gestion bi nga xamante ne waa Benno moo ñu ko fi moo ñu ko fi moo ñu ko fi bàyyi. Mhm. te on espère avoir des solutions mais lu ci ëpp tamit mooy il faut conscientiser les jeunes. parce que géej gi du solution. man sama benn xarit magam bu mu ndey ak baay des na ci. bàyyi na fi jabar ak ñeenti doom. xoolal loolu lan moo ko gën a métti. Mhm. donc Barça wala Barça njëriñ loo fekkee. waaye jël engage loo xamante ne xamoon nga ne xamoon ndax di nga àggam doo àgg dara jaru ko si àddina. te wërsëg nag lu yàlla bind sa jëb yi foo nekk dana la fa fekk. Mhm. affaire bi tamit foog ñu jiital si diine d'abord. jiital si tamit yàlla. mais bañ rek fixé si suñu ay bëgg-bëgg. té jeune bu nekk tamit am fu ak fayda man du man nangu kenn. kenn kenn di ma teg ben pression parce que élection présidentielle gis nañ fi ay ndaw mhm. yu sol tisetu euh, benn leader ñu ne ñoom mhm. carrément leneen mhm. feneen la voter parce que. xaalis bi la soxla rek. bien sûr parce que jeune yoo xamanté ne amuñ lu lek amuñ luñ naan buñ gisee ben

ba amoon offre euh, ci élection présidentielle donc ñun suñu président parti momo coordonné tout le programme mm-hmm. te suñu programme ak seen programme bari na ay similitude mm-hmm. motax il faut que ñu veiller de grain de près pour li nga xamante ne ñu koy déroulé noonu mm-hmm. mu ñëwaat touti ci ki lu wax liste Amadou babbi ci madjambal damay attirer attention autorité yi Madjambal, bu dafa bok ci liste yi man japp na liste yoy warul dem dafa wara a parce que c'est une personne qui a eu des mailles avec la justice Oh. il a été cité de. ñu ngi mimi ñu ngi ñu ngi chuchoté que ni mën loolu ñu loolu justice mooy justice mooy wax par rapport ak loolu. kar moo war a bokk ak moo war a. mais mais mais ba tey dégguñu ne mbala Madiambal am nañu ko condamné ñu ko mën a tere. voilà mm-hmm. ba ci egg nga xamante moo di ay élection képp ci bëgg bokk dañu lay may nga bokk mm-hmm. léegi nag justice bu fekkee ne am na lu nga xamante ne moom gis na ko ci loolu mooy mën a wax ne diw am naa problème ak moom wala am na nga xamante moom laa koy élection ñu tee bokk ci ay élection ndax lan koy waxal Sonko fii nii moom nit yàgg naa ba même avant Sonko mm. Karim Wade mi ngi fi Khalifa Sall mi ngi fi mm. Sonko mm. mi ngi fi récemment moom ma waroon nekk candidat mais dafa obligé jox plan yam pour mu nekk candidat mais fii c' est pas parce que bëgg doon candidat da koy nekk hmm. bu fekkee sa dafa am ay critères dafa am ay critères man tey su ma bëggoon nekk njëkk mooy naa bokk rek <laughs> naa bokk <laughs> <laughs> dafa am ay critères yoo xamante ne yoo xamante ne exigeant woon merci tonton Gueye dafa am ay critères te ma jambal dañ koy yàgg a dégg ci ay coow yu mel nii ci ay coow yoo xamante donc dañuy attirer ñu attirer ñu attention justice mais attirer mm-hmm. mu bokk ba ci Amadou Ba liste boobu a jàll parce ah, la nekk justice moom ñu pas la prétention di mu xam ki muy dugg ci liste mi mm. problème yi moom loolu loolu loolu nga may ma tuuti coro demande nationale c'est à la demande nationale donc aussi en ce moment les politiciens classiques, ils ont li tax ñu am problème waxoon naa la fii ne la politique gu nuux nuuxal ak nëpp nëppal. mais problème mënoo ko résumer tant que élection yi a ak résultat yi non non pourtant réglé nañu ko si présidentiel yi. réglé nañu ko ah parce que les anciens ils appartiennent au crépuscule de l'histoire les confondre. Mm-hmm. élection législative ak présidentielle dafa bëri li nga xamante ne moo parce que gis nañu ne on est 10 millions de sénégalais yoo xamante ne 5 millions yi ñoo ci voté. voilà rek c'est pas démocratique. donc dama dama jàpp ni peut am na ay jéego ba sénégalais presque 4 millions 4 millions presque waroon nañ def ndànk defaraat par exemple le jeune là. boo deful ndànk Macky defaloon na ko ne pas voter. parce que ñoom orientation yi lañ defoon parce que que ñoom xamoon nañ ne jeunesse bi Ousmane la ñuy voté. Mmh. Mmh. ñu jël jeunesse bi quand même. ñu jël jeunesse yëpp ne pas voté ne pas voté. est-ce que loolu balaa ñu faa parce que le délai est très court. voilà le délai est très court le délai est très court. mais am na seen mais xam nga loolu c' pas ah, démocratique. non loolu moo wax ne bu ñu bu ñu bu amee ay élections comme Zari nii.

Tok Baye Biden dafa ruslu moment bi ñu koy auditionné yalla moy yalla yalla yalla ay kenn moment bi ñu koy auditionné attendez c'est Bill Gates qui demandait à voir le président Diomaye mom mhm. ñu koy auditionné mhm. motax euh, amna lu nabi wax loolu dafa am solo lañ koy bàyyi xel on ne prédit pas l'avenir de mhm. quelqu'un non on n'est pas des ennemis nous sommes que des adversaires il faut que mo am une rééducation citoyenne pour nos politiciens buñ ay noonu ñu ay noonu Sénégal na rafet moo mu ne par yonent bi wax mu ne par sa grâce la grâce par sa miséricorde. Mhm. Lorsque Dieu t'amène à te prononcer sur le sort de tes semblables, sois bienveillant. sois, bienveillant mhm. alors. Mhm. Parce que le destin des hommes, y compris le chien est entre les mains de Dieu. Dieu seul sait ce que sera demain. kon Ousmane bu leen xoolee tey dana dawal mm-hmm. yërmande mm-hmm. mais jàpp ko patam patamee ko andi fi coono boo xam ne mm-hmm. teguñ ko fenn loolu seen ay feeling léegi nag loolu jeex na moo tax duñ jege aéroport de aéroport moom non duñ ko jege mais est tamit war euh, je pense ba nii mënuñu wax la ni reddition des comptes bi règlement de compte lañ ko war a defee bu fekkee ni jàpp ngeen ni loolu dara amu ci naka ngeen ma ko mën a justifier le ngeen démontrer ba affaire yi commencé ba tay moy machine judiciaire ba mu commencé di daw. premièrement déedéet kenn ko moom. waaw premièrement. <laughs> rapport rapport yi nga xamante ne moom la rapport yi nga xamante ne du kenn rek lañ dénk. liñ dénk bëri nañ. mais am na ñoo kenn du convaincre. mais di wax bëri na ñii di wax di dànkaafu bëri na comme si je pense que peut être est ce que. Eh, farba ngoma war na tax muy di wax. fii buñ duñ fa woo deful dara ci rapport yi parce que rapport yi. fa nekkul ñii fi tey ñoo defal. rapport yi dañ ko fi rapport fi financier bo xamantene dañ ko dañ ko fe fek mais ñu gis liñ doon denc ci kudd yi mom la ne moom la président Diomaye ne nañ fësal lépp. parce que président Diomaye nee na moom amul kudd bu muy tek ay rapport mhm. donc rapport yi bam mu bam ñëwé dafa déclassifier yu bari yeneen yépp yi nga xamantene dañ ko bloqué won légui c'est accessible à tout le monde. man mi lire na ay rapport yo xamantene surtout rapport Covid bi ak rapport 94 milliards lolu c'est un vrai carnage financier. Mhm. lolu mom dañ ko wara dafa wara bok ci dossier bo xamantene dañ ko war a gën 94 milliards c'est très très très grave. J'ai j'invite les Sénégalais à lire le rapport me dama jël matin temps lire à mais j'étais ébahi j'étais ébahi parce que mënu pas comprendre des Sénégalais ak Sénégal ni mu nekkee pays en sous développés sous-développé endetté en plus pays endetté mais ben Sénégalais wala ben groupe bo xamante ce sont des délinquants financiers nek nak au cœur du système mais amna ñu ci jàpp ne dañu am ay problèmes psychiques motax ñu dara jotul leen kooku affaire OQSF man le gars je le connais personnellement je peux dire parce qu'il est de Kaolack est-ce qu'il a des problèmes psychiques vu que tu dara jotu bon bama koy xam te amul woon problème <laughs> peut-être bon <laughs> daloo ko mais bama koy xam te yaagul aussi ñaanal tolof tolof yi mu génn si daaxaar voilà mais daal li ma war a mooy dañuy encourager carrément reddition des comptes bi dañ ko dañ koy war a encourager. Mhm. parce que lii dafa war a doon exemple ci képp koo xamante ne danañ la jox alolu askan wi na la gérer. ku xam ne ñu xam ne gestion boo ko defee suba danañ la dañ leen la danañ la canbar ndax man mii di wax gestion spécialiste en audit et contrôle. Mhm. te am na yoo xamante ne ça peut vite passer. Mhm. mais bu bu ñu gën a bu ñu gën a euh, dooleelee les les ñi nga xamante ne ñoom ñooy caytu alalu réew mi bu mu paree ñu def des suites parce que lii yëpp lu ko wane woon mooy Macky Sall moo daan def. ñu fal DG mu sàcc Cheikh Oumar Anne dem kudd am rapport mu jël ko def de l' enseignement pare fa mu defaat ko ministre de l' éducation. pour mën a effacer ginnaaw mu ngi noonu ak tamit man dama jàpp ne da daan gis ne kii sàcc la mën na sàcc xaaral ma gën ko dooleel. mais bu gisee bu amee benn petit directeur bu fa nekk danaan kon man tamit naa sàcc parce que kii sàcc na wala nañ ko te ñu ngi koy defal promotion moom il faisait la promotion des voleurs et des médiocres donc

ak ñàkk solo ak ñàkk reculé. bi nga xamante ne am na ko peuple si peuple sénégalais reculer en juillet parce que ñëpp xamoon nañ ne dafa bëggoon def troisième mandat. Mhm. mais moom li mu xam ba reculer bu demoon Amadou Ba am 35 mais moom 20 pour cent sax du ko am. mais imagine suis amoon état buy continuer comme Amadou Ba mu suis prôné mais xam na bu demee humiliation lay humiliation lay am. non bëggoon na ko c'est beaucoup plus profond. voilà. mais xam nga ko jox say bagage denk ko <laughs> nako soxla nako ko mu naan la ak ndiek ah. ak ndiek ak njëkk ah. ak ndiek mooy wane ne ñàkk wér rek. arrogance mais en japp nga ni peut-être buñu amone état wu continuité bi nga xamantene li makki tégon tank mom lay continuer scandale hmm. yi ñu doon gis ni doon lo xamantene dañ ko tégal ci kuréel bi quand même. si doo ko fi dégg. wa xam nga ki ñu mu tudd Ngone waxon na fi lo am solo. moy hmm. euh, rapport yi. Hmm manam enquête yi nga xamantene ñom ci lañu nara topé ñi japp ne laalé lañu ak euh, loubal wala jaxal jaxal mi jaxal jaxal du lool nga xamantene gouvernement bu bees bi bu mo ñëw rek teg euh, rapport yi noonu mm-hmm. rapport yi nga xamantene defoon nañ ko te ñu waron ko publier ñu ko ñu dañ ko manam xamna xawma ma ndax ñom lañu tégon kudd wala ou pas mais en tout cas dal li wër ba wër moy doonul li nga xamantene fessul nañ ko légui nak amna changement digënté bi gouvernement bu bees bi ñëw mu ne amna li fi jotone xew ci ay rapport nañ ko génne bu ko défé képp bép askan wala képp kenn ku nekk ci ñun nga mun a xam ah, nan ak lan moo nekk ci biir rapport yooyu rapport lañ génnee léegi nag li nga xamante ne moo di mbir mi l'enquête bi commencé na ku ci laalee di nga ñëw expliquer fan ak fan ak nan nga gérer euh, xaalis bi leen dénkoon wala leen dénkoon mm-hmm. bu fekkee ne laalee nga si dangay ngay taxaw ci kanam yoon bu fekkee ne laalewu ci ñu bàyyi la nga dem sa yoon loolu kay amul benn problème léegi nag li bon mooy li nga xamante ne moom moo di rapport yi ko ñu gis ne am na ñi nga xamante ne épingle leen ñu ne moom moo di bon et puis je pense que le peuple sénégalais lii demande la boo xamante ne ñun askan Sénégal su boppam moom moo bëgg a xam parce que daanoo lañ fi toog di dëgg ay milliards yow tu t'imagines ñu ne euh, coronavirus ñëw na ku nekk kenn ku nekk si ñun nga cotiser xaalis bi nga xamante dañuy naan pour ñu jàmmaarlo ak euh, feebar bi mm-hmm. ñu dégg ne am na ay nit xamante fe faatu nañ ci coronavirus parce que tout simplement dañoo mankoon dañoo manqué woon oxygène mm-hmm. am ñoo xamante ne xëy na ñu dem uti dépense bi nga xamante moom la waroon jox seen kër tax ba ñu tardé vingt fekk lañ ci bi ñu jàpp ñu nit yoon dóor leen au moment am na ñoo xamante xaalis bi ñu doon cotiser fii nii jël nañ ko dugal seen poche loolu Bassirou Diomaye Faye bu ko def bu ñu wàccee ko léegi nii demande sociale bi nga xamante ne askan Sénégal ñoom ñoom bëgg a xam ñi nga xamante ñoom lañ doon tudd ci ay milliards yow jamono jooju noonu boo génnee tey Dakar da gis fii ay immeuble yoo xamante ne du xaalis bi nga xamante da nga koy jëlee ci fonctionnement gouvernement même bu ñu la doon fay chaque année un milliard taxul ba nga tabax immeuble yu mhm. fondement bi kese kese kese ay milliards la mhm. ñu gis ay nit ñoo xamante ne ñoo ko def te ñu doon ay politiciens amoon ay at si ginnaaw tekkiwu ñu dara wala yoru ñu dara loo xamante ne mhm. mu doon tax ñu tabax immeuble yu noonu loolu yëpp dañ ko war a bàyyi nii mu jàll non c'est pas possible foog ñu leeral loolu yëpp ah, euh, euh, et puis aussi ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci bëgg a buruxlu ci liste euh, kii élection yi nii pour dem assemblée nationale bu ko defee ñu profité wala ñu ah. bénéficié ci immunité par loolu loolu duñ ko bàyyi mu jàll bu ko jaree sax ñu def fii temps bi def na ko wala defu ko même bu fekk ne jàll nañ ci assemblée nationale dañuy dindi am na ñu nga xam ne dindi dindi ko parce que am dul ñoom kese ñoom ñoo fi nekk et le peuple sénégalais qui soit responsable par rapport ak élection yi nii bëri nañ ci ñu bëree bëri gis nga coalition yi ñi nga xam ne ñëpp tudd nañ leen ñu ngi bëgg jëm dugg ci ay coalition yi nga xamante ne fa am ay dombal

Euh, ngand ngandalu daf fi nekk di indi di leen pour xaral dañ tëj non. fi xam te déggoo sénégalais wax ko de leader yi war a def leader yi man du ko sénégalais waxuñu ko. leader yi nga xamante ne. tey ñoom ñoo nekk bokkoon ci waa kër ñàkk jàmm. opposition bu médiocre boobu opposition bu médiocre ah, boobu. d' accord ñoom ñoo ko def bon ñoom li ñu def sonko genn wàllu walaat kam ngi defuñu ko ñoom mënuñu opposé wu dèjà ñoom dañoo falu rek commencé dañu nekk opposant commencé yu nee nañ Ousmane Sonko da leen Sonko toog na trois ans yoo xam ne dañ ne ko doo génn réew mi mu toog seere barigaate ko patriote yi patriote yi daje ñu dagg ay compte banqueram am patriote yi di cotiser ñu arrêté cotisation ba teg ci loxo muy ñaar mhm. ñu ne ko sa kër fi génn ñett tëj ay compte nekk ko su écoute képp ku ànd ak moom ñun la jàpp lañ la boo taxawee ci chronique sax di wax ne ci Sonko suba nu woo la ba ci man mi barricade këram yóbbu ko Ziguinchor tëj ay kontam jàpp ay nitam ba doomam bu ndaw bi sax bu bëggee jàng ñu ne ko doo fi jàngee nañu gore la Sonko daj xaaj ba bu ñu leen ko tegoon ko ñoom dañuy dee jiñ ko viol jiñ ko agresseur jiñ ko terroriste